bisimila cay tabaski bi lee doy na waar le quotidien yéene am na ci ay jumaa yu bëree bëri day du ñu julli de tabaski bi maa la ko wax bi lee troisième vague baa fa jaar waaw en wu Haalpulaar yi lee mosquée omarienne bi ci Médina waaw ñooñee day nee nañu du ñu julli jumaa ja nekk ca wakaam gale mosquée de la divinité corniche ouest nee nañu duñu julli grande mosquée bu ndakaaru njaay jël joob nee nañu duñu julli ndaxte imam ba Aliou Moussa Samb waaw nee na tànk coronavirus banque sénégal gi lé grande mosquée bu ndakaaru day daal di tëjee du tijjeeku dee déedéet yéeni kaay ma jama jàngi ne waaye laay nii day danañu julli masalikul sinaan danañu julli jumaa muusante ka ca Thiès danañu julli njawootuk njigéen yi danañu julli julli boog Ndiaye Gueye Diop day te soxam war di ñu jiite ko waaw génnee na benn milliard a ñaari téeméeri million ci suñu koppar ngir jàppale hôpital nga xam ne ñoo nekk ci département bu Ndakaaru gi lée jigéen ju mën góor merci madame la maire soxam enquête yéene kaa ne waaye gis nga yorinu covid googe corona ga xalif général u Tijaan ya day am na dëgg tey de am na dëgg de dama ne la sëñ bee ne ci dëgg si Malick ndaxte keroog ba corona ba dikkee ba léegi ni a ci lu jëm nag ci wàllum covid 19 joojee waaw surtout alaaji Malick ba day waaw ma nga continuer di wax suñu kilifa jiite réew mi ne leen wax leen nit ñi dëgg ci lu jëm ci wàllum mbas mi la ak la muy jur wax leen nit ñi dëgg yéene kaa gi ne njabootu ko amar yéen nga day tabaski bi waaw ku nekk na sa kër toog leen seen kër waaye est-ce que duñu dugalaat nit ñi rek fu nekk seeni biir kër reconfinement maar day taali sur côté yéene en tout cas day lay dël ka bi tabaski ren bi ne waaw tabaski ñaari boor la de ñii danañu talaata ñii julli àllarba évidence yéene kaa ne tabaski bi del en tout ca département bu ñooro waaw Moustapha bi tey lu tolloo fanweer ci ay millions laa lay wax ni lée la dimbalee doomu aadama ya lu tolloo juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay xar 72 waaw fukki tonne ak benn ci pompiteer fukki tonne ci soble enveloppe fukki junni fukki junni kër gu neex ñëf yéene kaa gi moo tax it ndaw yee nekk ca mouvement boobee jom rafetlu nañu li Moustapha bi tey def ne mi ngi doog a am département bu Nioro bi lee vox populi ak évidence yéene kaa université bu sànge gëlee élèves El Hadji Malick Ndione tey lay mujjee dama ne la dàq nañ ko ilaa yawmi diin définitivement mardi tali yaa ilaahi waaw parce que élèves yi kat Malick daa agressé woon surveillant bi lé ci bopp bopp toj allahu akbar ay suñu élèves yi la leen dal léegi la ko di jëlee rek ne yeesalaat na conseil constitutionnel googee waaw waa CRD ñoo Abdoul Mbaye Thierno Assane Sall Mamadou Lamine Diallo daal di nañuy bind nag Pape Oumar njiit la box boobu blocage bu conseil constitutionnel waaw waa CRD gi day ña ngay sàkku ca Macky Sall nag mu dakal pëcc xool di désordre bi nga xam ni kon moo am ni lée désordre institutionnel waaw te daal di fal nag ñetti ñu bees ci ay sage Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo ak ñañ àndal kon ca CRD googee nee nañu lii chaos institutionnel la te am na tamit risque ci lu jëm ci wàllum justice bi le lettre CRD ba day Abdoul Mbaye moo ko signé jébbal ko président conseil constitutionnel moom Vox Populi mbalax bu bees bi lée wàññi ko waaw mais Youssou Ndour yan fenkat ak mbele-mbele boo parleur lay waxal waaw Youssou Ndour mii moom yan narkat ak yan mbele-mbele lay way nii en tout cas ñii mu way nii daal duñu waxatu dëgg de <laughs> cay nduur waali mbergaan yoo lu ne way na ko barke rasul laay loo xalaat Youssou maa jigéen Ndour way na ko pétrole bi dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te ci réew meeg ci àdduna application Sénégal set indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono. xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy télécharger rek. presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleek coono nde Sénégal 7 nee la presse en ligne autrement. fi mu nekk nii nag moom moo des pétrole parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal